Cheikh Mouhamadou Fadel yi jaaree ko ci muy bis bi ñu ñu ko tuddee muy bis bi tey muy guddi gi muy guddi gi loolu day day day delloo njëkkal day delloo njëkkal nga xam ne mooy seen maam si Abdourahmane ki nga xam ne mooy seen maam si Abdourahmane alxuraan. ndax alxuraan. ji nga xam ne Seex Xaadim na ko moom mu xamal ji nga xam ne Seex Ahmadul boole woon na ko ak moom mu xamal ko ko. ku ne xam ne def na ca moom ba def ci def ci moom xar baax. ku ne xam ne def na ca moom ba boole ca xar baax ba yóbbu ko fu féete kaw njort. moo moo ko magam ju baax Seex Muhammadu Mustafaa. moo ko magam ju baax ba Seex Muhammadu Mustafaa. kon lii lii de de de ak njukkal waaye ak ak ak cant la. day delloo njukkal ak cant waaw kon kon nag yéen yéen ñi nga xam ne yéen ñu teewal yéen fi teewal Cheikh fi teewal Cheikh Mahamadou Baraka mi ngi leen sant bu baax sëñ Aboul Baraka mi ngi leen sant bu baax ndax nii ngeen ñëwee ndax nii ngeen ñëwee ak cofeel da koo laal ak cofeel moo ko lal boo xam ne dafa jëm ci kër Cheikh Amadou Fall boo jëm ci njabootu Cheikh Mahamadou Fall ndax Cheikh Abdourahmane sédd yu nekk ndax Cheikh Abdourahmane day séntu na cër yu bëri Cheikh Mamadou Fall. njabootam mi ci biiram. ak njabootam mi ci biir njabootam. sëñ daam sëñ daam mi ngi nii toog. sëñ daam Abdourahmane Fall mi ngi nii toog. loolu rek day day ab junj. loolu rek day ab junj. alxuraan ji mu ko wane ji ko ji mu ko ji mu ko ji ko jàngal. alxuraan ji mu def ci moom. sëriñ bi def na ci ay xarbaax yu bari. sëriñ bi def na ci ay xarbaax yu bari. ndax nekk na nekk na fa ndindi liggéeyal sëriñ bi. ndax nekk na saa yu tool bi tool yi taalib yi donc noppee. saa yi noppee. mu jël kaamil bi. mu jël kaamil. boole ko mi boole ko liggéey ba. mbay ma boole ko euh, mi liggéeyu ma. jox Seex Xaadim. jox Seex Axmadu Xaadim la ko sabab mooy alxuraan ju rafet. te loolu la ko waral lenn alxuraan ju sell ju rafet. Euh, kon kon loolu njukkal la goo xam ni. kon loolu njukkal la goo xam ni. ba àdduna tukki rek. ba àdduna tukki. lii di lii di ab mandargam ci luñ mën a gis. lii di mandarga rek ci lu mën a fës lu mën a fee. waaye waxtu ne ñu ngi delloo njukkal njaboot googu. waaye waxtu ñu ñu ngi delloo njukkal lu jëf bu baax loolu waaye xel dal na ci ñoom lool. waaye xel dal ci ñoom bu baax a yoonu murid yëpp la xel dal ci ñoom. yoonu murid seen seen xel dal ci waa Kër Cheikh Abdou bi ñu leen joxee tur wi. bi ñu leen joxee tur wi. li ñu jàng ci ay kaamil. li ñu jàng ci ay kaamil. toll na ci ñaar téeméeri kaamil. toll na ci ak lu topp bi ñu ñëwee ci guddi gi tey jii bi ñu ñëwee ci guddi tey jii dañu indaale kaamil bu ñu bind ñu indi kaamil bu mat sëkk loolu loolu ñu jox na ko léegi ñu jox na ko léegi man nag sama doomi sëriñ yi moom doomi sëriñ yi di sëriñ Takko di alaaj bàyyi sëriñ Takko si amul Badawi ak bàyyi si amul Badawi mi nga xam mooy liggéey liggéeyu màggal mi nga xam ne mooy jëw ñu màggal loolu nag guddi gu ne taxaw na fi waaye loolu ñu xamal ne guddi gu nekk taxaw na fi waaye waaye gu mel ni tey jii waaye mi ngi fi doog am mi ngi fi doog am ndax day guddi gi alxuraan ndax day dugg taraanga muy alxuraan ku ne xam ne sëñ Cheikh Fadal ci alxuraan kenn ku ne Cheikh ko xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal ak alxuraan waaye ku gis fa mu fa mu bàyyi koo waaye ku gis fa mu bàyyi koo mu daan mu daan naafile ñaari ñaari rakka guddi gu nekk mu daan naafile guddi gu nekk ñaari rakka kaamil alxuraan kaamil bi ñu leen jox leen bu sëñ Fallou kaamil bi ñu jox leen bu sëñ Fallou koo gis koo gis xam ne fa mu bàyyi koo koo gis xam ne fa mu jógee foofe foofe foofe la fa jógee mokk na foofe la fa jógee jaar na coon mokk na ñaanal ci barkeb sëñ bi ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb sëñ bi suñu borom wàcce barkeb Cheikh Abdourahmane boobee suñu borom wàcce barkeb Cheikh Abdourahmane boobu ci biir njabootam ci biir njaboot yëpp te loolu rafet nañ ci jot bu baax te loolu rafet nañ ci jot loolu ndax kàddu yi fi bàyyikoo te jóge ci ñoom ndax kàddu yi fi bàyyikoo te jóge ci yéen kàddu yëpp rek mënees na koo dégg kàddu yëpp yu sàll la yoo xam ne mën a dégg li li wolof naan mu jiw leen puso mu réer waaye wolof di lépp mu jiw leen puso mu réer yéen mu jiw leen puso mu réer sëñ baa ngi leen di ñaanal seen fan. suñu borom bi àggoon ci barke. ci barke. ngi sant daayiru eh, daayiru Ahfadu yi. sëriñ baa ngi dul ak na ni dal nañu xelam lool alhamdulilah. ndax eh, ci wet gi ngeen aw. ndax wet gi ñu aw. mooy xëñ seen eh, tànki maam yooyee ci biir seen seen seen daayira bi. ci biir suñu daayira bi. am na ci am na ci kuréel bi boo xam ne day yëkkati xasida. am na ci kuréel boo xam ne dañuy te loolu yéeme la. te loolu yéeme la. waaye loolu nag day day day day yëfi démb yoo xam ne. loolu loolu bu ñu ko ci démb du jaaxal kenn. ndax Cheikh Moufane da ko daan def ak Cheikh Moustapha di ko def bu baax. ndax Cheikh Mouhamadou Fadel ak Cheikh Moustapha di ko daan def bu baax. xañ xañ lu baax rek. xaj lu baax rek. mooy taxaam lu baax mooy taxaam lu baax. sëñ baa ngi leen di sant bu baax. sëñ baa ngi leen di sant bu baax. moo xam ñu góor ñi la. moo xam ñu góor ñi la. yi la. moo ak mboolem këri yi seex yi fi yëpp. ndax dafa mel ni ki ni ki ko tuddee. Cheikh Abdou yoon yëpp amoon njukkeel. yoon yëpp kër gu kër gu ne rek. ndax kër njaboot. Cheikh ko ko. moom ndam. mu am ca moom ndam. loolu ku ne xam na ko. loolu kenn kenn umpale ko. li sëñ Xaadim wax léegi. li sëñ Xaadim loo wax léegi. ci ci diggante Cheikh Fall ak moom. ci diggante maam Cheikh Ibra ak moom. loolu loolu yéeme la. loolu yéeme la. ndax ñoom benn lañu woon. ndax ñoom benn lañu woon. kon bu dajee bis bu ñu ko bu dégg ñu bis bu ñu ko tuddee. surtout Cheikh Fall nekk xalifa Cheikh Mouhamadou Fall. surtout maam Cheikh Ibrahima nekk nekk kon day day day day lu lu bi nangu. kon day lu sëñ bi nangu. dafay mel ne sax sëñ bi ci xeer ci loolu. day mel ne sax jullu sëñ bi la ak bàkku sëñ bi. ñu ngi ñaan ñu ñu toog ci kër yooyu. ñu ngi ñaan sëñ baa ngi ñaan. kër yooyu. Cheikh Abdoul Baraka ak Cheikh Amadou Bachir. waa kër Cheikh Abdoul Baraka ak Cheikh Amadou Bachir. ak njaboot gi nekk seen gannaaw. ak njaboot gi nekk seen gannaaw yëpp. suñu borom yàggal leen te te wéral leen. suñu borom yàggal leen te wéral leen. te te li sëriñ bëgg. te li sëriñ bi bëgg. te ñu nekk ci mu sax. te ñu nekk ci mu sax. te te tette ko ba ci seen i seen i njaboot. te mu sax ba ci seen i njaboot noo ba ci seen i njaboot. guddi gu mel nii. guddi gu mel nii. ba ñu tàmbalee rajab ba léegi. ba ñu tàmbalee màggal kas rajab ba léegi ngi wàcc ay kaamil alxuraan yu bëree bëri. ñu ngi ay kaamil alxuraan yu ay junni junni. ay junni junni. kon day borom bis bi. kon day borom bis bi. yàgg nañoo jàng kaamil yàgg nañoo jàng kaamil waaye borom bis moom mooy mooy mooy adresse su kaamil yi waaye borom bis bii nag tey mooy adresse kaamil mooy tasaarub kaamil mooy tasaarub kaamil moom mooy tasaarub kaamil kon nag yàlla na barkeb alxuraan tàbbi ci moom kon yàlla na barkeb alxuraan tàbbi ci moom dëkk ak moom dëkk ak moom barkeb sëriñam boobee mu yaakaar barkeb sëriñam boobu ndax la la muy mën lépp kat ndax la muy mën lépp kat boolewu ko woon ak dara boolewu ko woon dara bëggutoon sax barke bëggutoon sax barke alxuraan bi ko sëñ Tuubaa sant rek alxuraan bi ko sëñ Tuubaa sant rek loolu dong la la sax loolu rek la sax ku jaar fa ndam jaar fa ndam boo gisee xam ne ku dëddu àdduna ngi nii boo ko gisee xam ne ku dëddu àdduna ngi nii ku defaru ku ne rek ku defaru ku ne rek foofee nga aw foofee nga jaar duy sa sa ndab feesal daal dem ba feesal daal dem kon nag yàlla nañu ko teewee déwén yu bëri yàlla nañu gu mag gi di ñaanal suñu kilifa yàggal ko suñu borom ji muy wax ci daara yooyu ji muy wax loolu yi mu àggale loolu yi ba ba mu naal yeneen ba mu naal yeneen barke jumaa jooju ngeen di wax ndaam tam jumaa jooju ñu wax ci ndaam noo ngi ñaan ñu dem ba di ba julli ko. ñoo ngi ñaan ñu dem ba julli ko. ndax Cheikh Fall lépp lu mu wax rek. ndax Cheikh Fall lépp lu mu wax rek. des des cee teg bët. des cee teg bët. yàlla naa gëj ci seen seen jëmm yi. kon yàlla naa gëj suñu jëmm yi ñëpp. ñu taal suñu takku ñaan la kon. bisimilah kon ñu ngi tàll. bàyyi suñu takku ñaan. bàyyi suñu takku ñaan. waaw. Cheikh Fallou Cheikh Fallou bismillah Cheikh Fallou Cheikh Fallou ana soppi ala Cheikh Fallou la Cheikh